Euh, Mamadou Gueye euh, euh, diko ko euh, dalal jàmm ci kër gi ñu tàmbale ak Dakar waa quotidien moom dafa day lu si ci ñaari nataal muy bu président de la République Bassirou Diomaye Faye premier ministre Ousmane Sonko waaye fi du premier ministre bi may wax waaye ki nga xam ne moom mooy président wu parti Pastef Sénégal France Diomaye dafa mel ni dafa dellu soit ci relation diplomatique yi waaye nag Sonko ci wàllu tirailleurs yi ndax dafa dellu ci li nga xam ne moom moo xewoon ci euh, wàllug Caaroy euh, ca 1944 ay euh, officier français faat yenn ci ay doomu Afrique waaye France nag démb ne ni ñu juróom benn yi daal dañu leen di reconnaître ne daal ni ils sont morts pour la France Sonko nee na ni loolu teguwul ci yoon leneen ci xëtu njëkk yéenekaay bi mooy premier ministre bi woon Amadou Ba moom nag euh, Serigne Mountakha ba euh, Bachir ak Serigne Bass Abdou Khadre dalal nañ ko euh, ca Touba ci weekend bi la woon yéenekaay bi wax na tamit ci wàllug yoon ak maître Ali Fall mi nga xamee ni moom la ñu tabb mu doon bâtonnier de l'ordre des avocats du Sénégal muy lu yees wax nañ tamit ci xalif bu Cheikh al Islam Cheikh Mahi Ibrahim Niass moom nag dalal na fële nga xamee ni moom mooy ca Cameroun téeméeri jullit yu bees ndax ñooñu di ñëw daal eh, jéggalu te jébbalu te tamit eh, wane ni daal li dugg nañu léegi eh, ci diine yi l'islam yéen kaay bi di Vox Populi di dellu si ci njiital réew yi nga xamee ni ña nga jëm ca Touba ak opposition bi mel ni sëñ Mountakha Mbacké moom nag dina dalal nga ki nga xam moom mooy président de la république Bassirou Diomaye Faye fas yéene ko déroulé le rouge euh, ni ñeenti fan lay doon ci weeru août atum 2024 loolu yëpp ci waajtaayu li nga xam ne moom mooy màggalu Touba nga ne dañu daal li euh, maire bu Touba Baye Fall yi ak ñëpp li nga xam ne daal dëkk nañu ca biir euh, dëkk bu sell ba lu ñu bëgg daal mooy ñu fexe ba dalal seen gën googu di président de la république ci dal boo xamee ni day mucc ayib yéenekaay bi di wax daal maire Touba moom def euh, lenn loo xam ne daal dinañ koy xeet ci dalal ki nga xam ni moom mooy euh, porte parole xalif euh, di dalal kon président de la république loolee tamit porte parole lu xalif lay Baye Fall di ko xam leen ne daal ni dañ def seen kem lay kattan ba dalal bi doon dalal bu mucc ayib kii di njiital Touba di Cheikh Mountakha Mbacké Bachir de daal nii li mu bëgg wane na tamit ni moom Amadou Ba. nekk na koo xamee ni euh, euh, daf ko nawloo bu baax a baax wëllëreem la ne daal sama wëllëre la euh, digganteem ak man amul lenn loo xam ne daal lu ñagas la wala lu ñuul lu sincère la lu dëggu loolee nag Amadou Ba nga di ko rafetlu Touba nag ci kaddu yi nga xam ne jóge na ci Serigne Bassirou Mbacke Abdou Khadre mooy daal xaaru xaaruñu lenn ci kenn rawatina ci lu soxol mbirub Euh, ndox meeg euh, wàllug euh, inondation yi nga xamee ne am na fa waaye porte parole lu xalif général des Mourides nekk tamit ki jiite comité d'organisation màggal bi nee na daal ni faw ñu fexe wut ci saafara ndax 2012 daal la njëkkoon a wax ne ni lii bu ñu ko bàyyee mu wéy dinañ dem ba màggalu Touba doon ci biir nawet te bu fekkee ne defaruñu li nga xam ne mooy jëm ci wàllu assainissement ak yooyu lii di mbënd mi dinañ sonal te moom moo fa am jamono ji Yacine Fall nag. ministre des affaires étrangères moom dellusi na ci coow li nga xamee ni wër na ko moom ak njabootam ne daal ni ñi nga xamee ni xamuñu eh, kii di Ousmane Sonko wala président Bassirou Diomaye Faye ñoom ñooy wax daal ni Yacine Fall am na lu mu laalee ci eh, fal bi ñu fal eh, doomam ci benn post direction ne daal ni moom tuuti na loolu ngir mën a jàkkaarloog ñaar ñoo ñëwee naan leen euh, def leen dara ngir sama doom loolu daal fësal na ko wax na tamit ni ci wàllu passeport diplomatique dafa mel ni dañ doon xëy daal mu mel ni dañu ubbi ak euh, usine euh, production industrielle passeport diplomatique ndax nee na ci ñetti semaine lu tolloog téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci ay passeport daal defar nañu ko am na ñoo xam daal Euh, fa ñuy joxe passeport yi ak nañ koy joxe sax loolu du yoon waaye loolu yëpp dina ci am taxaw seetlu te dina ko dakkal euh, jëm tamit ci lu jëm ci wàllu ambassade yooyu am na euh, lu yees loo xamee ni fas na ko yéene def ci ambassade yeeg consulat yi relation diggante Sénégal ak France président partie Pastef di Ousmane Sonko moom nag dafa dal bu baax a baax ci kaw France ex puissance coloniale nga daal li sàkkuwuñu ci gouvernement bu France ngir mu euh, xoolaat li nga xamee ni wala sàkku nañu muy xoolaat li nga xamee ni moom mooy ay méthode am ndax euh, jamono dafa weesu dafa soppeeku Thierno Alassane Sall moom nag. nee na nguur gi euh, lu ji njàkk ñoom ñooy njàkk ñoom ñoo waxoon ni rupture dina am du ñu dem ci France di wane daal ni dañoo ànd ak moom waaye li ñu gis daal mooy ni président bi dem na ñaar yoon ci réewum France ci diirub ñetti weer yi nga xamee ne mu ngi nekk ci présidence euh, Bougane Gueye Dany nag moom ci kaw Ousmane Sonko la daal nee na daal li mu bëgg mooy nañu leeral événement politique yu 2021 ba 2024 ndax jàpp na ni am na ay nit ñu bari ñu faatu te euh, laataa muy wax ci mbirum ay diplomatie yeeg ay mbirum euh, africanisme panafricanisme ak yooyu na wax ci li muy woowee moom protocole bi amoon ci wàllu Cap Manuel yéen i kaay di enquête di wax ci régime bu bees bi ak prédation foncière wàllu suuf nuñ koy caxa caxate mu mel ni daal euh, ab bomb la boo xamee ni euh, dañu ko euh, yéexataal te buy tàkk mën naa bett suñu bari loolu yéenekaay bi xëy fësal wax na tamit ci fédération sénégalaise bu football mu mel ni nii ab tempête moom moo fay waaj am Walf Fadjri quotidien nee na daal nii moom daanaka sori na APR ma ngay jéem a jege socialiste yi dem na ca tuuba moom Amadou Ba. ma ngay euh, li ñuy wax tisser sa toile ma ngay defar daal li ko wër euh, la leen la xëy euh, fësal moom yéenekaay bi di wal Walf Fadjri wax na tamit ci gestion fonds Covid 19. parce que am na benn juge boo xamee ni léegi ñu saisir ko ngir mu leeral ko ñiy faatu nag ci mat li nga xam ne moom mooy manifestation yi 2021 ba 2023 jàpp 2024 ak. protocole ba muy duppee moom protocole teeru Baye Sogui bugan dalatina ci kaw. Ousmane Sonko yéenekaay bii di Sud Quotidien moom dellu si ci euh, Amadou Ba ndax nee na daal moom bu dee chef opposition mooy chef de l' opposition euh, tey jàpp na ni yenn ci opposition yi nga xam ne dañuy dal ci kaw euh, kii di Bassirou Diomaye Faye ak régime bi ak ñoom Ousmane Sonko ak yooyu loole mën nañoo xaar ndax Amadou daal calmé na jeu bi ci yéenekaay bi di Sud Quotidien daal ni fii ñu toll nii dañ leen di mayil délai de grâce ndax bi ñu fi nekkeek léegi motul ñeenti weer lan la ñuy nekk di daw bay daanu ci lu soxal euh, boobule régime docteur Cheikh Gueye euh, moom bu bokk IPAR nag dellusi na ci wàllug souveraineté alimentaire nan lañuy def ba am ci yéenekaay bi di wax ci massacre Thiaroye Thiaroye 44 bi ñu doon wax léegi <coughs> daal ni am na coow diggante France Sonko ak Bougane euh, juróom-ñett fukki at gannaaw gi juróom-benn tirailleur la ñu faat ñu woowee leen mort pour la France à titre posthume Ousmane Sonko ne loolu euh, du France moom mooy fixé nag ñaata nit wala ay africain la ñu trahir ba pare faat leen assassiné leen yéen bi tamit yëkk ci kàddu yu Bougane Thiaroye de 44 euh, waaw d'accord mën ngeen ci wax waaye wax lañu ci juróom-ñeent fukk ak euh, juróom-benn martyrs yi nga xamee ni faatu nañ diggante 2021 2024 ak protocole bi nga signé ak Macky Sall lool la Bougane tontu Ousmane Sonko yéen kaay bi nag di wax ci wàllug réglement intérieur assemblée nationale. mel na ni euh, mool nañ yëpp defar nañ lépp jox nañ ko président euh, bi nga xawee ne moom mooy président assemblée nationale kooku yónnee naa bataaxal président la république moom Amadou maam Diop euh, ngir wax ci wala sàkku ci président Bassirou Diomaye Faye ngir daal mu jox ko avem ci li nga xamee ni soppi nañ ko ci wàll woowu ren yéene kaay tribune di wax ci cacophonie bi am ci bopp réew mi Diomaye ma ngay gérer Macron waaye Sonko ma ngay attaquer France loolu yéen kaay bi xëy fësal euh, mu mel ne nag euh, chaque fois bu président Diomaye génnee dem France wala mu dem feneen euh, dafa mel ni premier ministre am dafay jàttu ni soccet noonu la ma jàmbal wax yéen kaay bi di wax tamit ci premier ministre bi nga xam ne daal li mu jàpp mooy France mënula la def lu yées wala lu raw wax waxam boppam dong te laajul xalaatu ñi nga xam ni ñoom ñoo. Euh, loru wala loru le ci mbiru Caaroy 44 Bougane moom nag euh, ci kaw premier ministre boobu la dal nee na ko daal waxal dëgg bi ci euh, juróom-ñett fukk ak juróom benn nit yi nga xamee ni ay ndaw la ñu ñu faat leen diggante 2021 jàpp 2024 ak protocole bi nga xamee ni signé ngeen ko ak Macky Sall loolu daal la wax wax nañ tamit ci wàllu conséquence yu eurobond bu mujj bi mu mel ni FMI nag dañ doon xaar lu tollook ñaari téeméer ak fanweer ci ay milliards Euh, ci wàllu eurobond waaye dañu gàntal réewum Sénégal euh, lan moo ko waral nag mu ngi ci xëtu njëkk yéenekaay bi di euh, tribune direct news ci wàllug modernisation transport urbain yi la wax ak af ci yi nga xamee daal dafa mel ni d'accord yu ñu ak kii jiite CETUD ndax mel ni dañoo bëgg ay aftu ak yenn bus tata yi ngir gën a dooleel li nga xam ne moom mooy bus rapide transit di BRT l'observateur conseil supérieur de la magistrature mu mel ni ñii dañu fas yéene fippu muy ay magistrat waaye sax ay magistrat yu jigéen parce que magistrat yi daal lañ wax euh, ñu wax daal ni euh, polémique boobu nga xamee ni coow loolu am na ci wàllug ubbil conseil supérieur de la magistrature ñoo xamee ni bokkuñu ci wàllug magistrature loolu yëpp bokk na ci li ñu waroon waxtaane ni ki àllarba bi ñu dëgmal euh, ci wàllug nag calcul yi nga xamee ni am na am na ñoo xamee ni ñu bëri da ngay jaww li jëm ca Pastef loole nag mbirum soutien la waaye li ñu bëgg mooy ba bu ñu amee soutien wu Pastef muy dem ci élection yi rawatina ci wàlluk élection wu euh, député yi dinañ mën a am ay député loolu la koy yéenekaay bi xëyee fësal beneen yéenekaay di lii quotidien di wax ci porte parole xalif bi ca Amadou Ba euh, doon ko wax moom foofu ci Touba nee na du pouvoir moo tax ñuy ànd ak nit loolu bu yeboo mu leer ndax Serigne Touba jox nañu lépp loolu la euh, Serigne Bass Abdou Khadre wax Serigne Mountakha Mbacké Bachir moom wax premier ministre ne ko Eh, da nga nekk ku ma jege loolu ma waral eh, ma am cër boo xam ne jox naa la ko Amadou Ba moom nee na daal ni eh, sant yàlla ba ñu nga xamee ni am nañu mbirum xaritoo bu dox sama diggante man ak ki nga xam ne moom mooy xalif bi daal ni ñu ngi defar ci lu bari waaye dañuy xaar gouvernement bi comme ba muy doog falu léegi yàggul nañ leen bàyyi ñu liggéey loolu daal Amadou Ba xëy fasal fësal buggaan na Sonko ak yi nga àndal wax la ñu dëgg bi ci 86 euh, martyrs yooyu source A dellu si na ci benn euh, marché ay fukki milliards ci suñu koppar jëm ci ñetti hélicoptères yoo xam ni moom moo waroon a jëlee personnel bi liggéey ci euh, li nga xam ni moom mooy Sangomar ak Woodside ngir mën leen a jëlee ci plateforme bi di leen yóbbu ci li nga xam ne moom mooy suuf si. Euh, mu mel ni am na scandale bu ci fës nag ndax dafa am benn kuréel buñ ko dénkoon di NHVWA société de droit sénégalais yoo xamee ni lu tolloog ci téeméer boo jël ñeent fukk ak juróom-ñeent ci euh, ay fonds américains d'investissement la ak leader européen bu transport héliporté ñoom ñoo gañoon marché bi ñu dem ba ci biir nguur gi weesu xëcc marché bi jëlee ko ci euh, waa NHVWA ba pare jox ko ñeneen ñoo xam ne daal ñoom ñëpp ay européens lañu ay tubaab lañu. te deewul ñooñu di NSVWA dugaloon nañ ci lu tolloog juróomi milliards mu mel ni France dañ ko perte lépp lu ñu koy tuumaal mooy nguur gi fi jóge teewul ñoom woo nañu seen i avocat ngir leeral mbir mi gannaaw sorteem ci Thiaroye 44 Bougane Gueye nag moom dal na ci kaw Ousmane Sonko ay éloge di maanaam tàgg nañ ko bu baax a baax moom Amadou Ba euh, fële euh, ca euh, Touba Mbacké bi mu demoon agence sénégalaise de l'éducation nag libération mu wax ci benn scandale gré à gré la tolloog 91 virgule 833 milliards mu ngi ci biir xëtu njëkk yéenekaay bi euh, di euh, libération euh, suñu natango bi nag moom Sambou Biagui mel na ni am na projet bu rëy boo xam ne mu ngi ko fas yéene ca maison de la presse en relief moom moo ci addu yor yor di wax ci lu mel ni cannibalisme nag financier bu ñu koy wax nag cannibal mooy mbirum noxóor kuy lekk nit daal ne looloo am fële ca Puma kañ ca tuumaal mooy coordonnateur bi Moussa Sow euh, ne nag ndax moom waruñu ko fa jëlee sax ndax bu ñu xoolee sax ci wàllug la mu jënd ambulance bu war a jar 44 euh, millions mu jëndee ko 64 millions euh, ambulance beneen boo xamee ni non médicalisé bu a jar million millions ñu jëndee ko million millions bateau ambulance buy jar 49 millions ñu jëndee ko 127 millions bor bu tolloog juróom-ñaar ci ay milliards yoo xam ñu ngi entreprise entre autres loo xam ne daal yor-yor. xëy na ko fësal wax na tamit ci ministre bi di Serigne Gueye Diop ne daal ni euh, la ñuy wax ci moom dara amu ci le républicain ak euh, lu yees loo xam ni amati na di ab jaloore ci hôpital militaire bu Wakam ci wàllu transplantation rénale muy ñeenteel yoon ñu koy def waaye nag ñoom nee nañ ni ba mayul daañ ko bàyyi parce que amatuñu ay moyens le point actu moom ci Amadou Ba la dellu si ak biir APR coow li mooy ndax dafa bëgg taxawal beneen bennoo ci wetu Bennoo wala ci biir Bennoo ndax euh, euh, Macky Sall dafa mel ni dafa bàyyi euh, Bennoo ak APR Amadou Ba ma ngay waxtaan wala seet na muy dajee ak Macky Sall Niass Malick Diop bu AFP Aminata Mbengue Ndiaye bu parti socialiste ñoom dafa mel ni ñu ngay gën a jege Amadou Ba Amadou nag li bëgg mooy donn li nga xam ni moom mooy Bennoo rawatina ay inconditionnelu Macky Sall waaye nag am na ñoo ci biir AFP. d' accord yu ci socialiste yi ci mel ni Serigne Mbaye Thiam ak Alioune de tamit ñoom it d' accord yu ci ñu jàpp ne daal ni eh, mbir mi du yomb Sonko Sonko kon ma ngay dal ci kaw France Bougane ak Madiambal ak Thierno Alassane Sall ñoom di dal ci kaw son Sonko point actu ak yeneen yéen kaay daanaka ci lool lañu dellu si euh, ci euh, gàttal. kon ni moom la. yéen kaay yi xëy tey altine yamook ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weerub juillet atum